salaamaaleykum ami internet bu Torino Media TV siyaar naa leen bu baax leen wax ne amatu nañu mbégte rek contentement neel nag saa da nga xam tamit danoo seeti ndaanaan waaye tamit saa bu ngeen gisee jug da nga danoo seeti nit koo xam ni ku am valeur la nit koo xam ne yàlla ko a xam ci turu Ndeye Khar ah, nekk dafa làmboo ay pàcc yu bëree bëree bëri bëri moom dinañu leeral la moo war a Sisa Group bi ak ci lan lay yëngoo yu ni mel en même temps aussi na li nga xam ne mooy euh,

ak site d'actualité am bouquet numérique di yëngu également ci lépp lu nga xamante ni création et management des entreprises la nek aussi intérimaire de certaines entreprises yi nga xamante ni nekum Sénégal ma nek sen représentante donc euh, nek ci lépp luy web développement conception des sites internet des applications mobiles euh, des logiciels aussi xam nga logiciel mom xam ci góor lañ ko xam man nak ma nango xous dial ndax dama ne rek loxo yi nga xamante ni moy takatu bay loxo yooyu nak moy tak sœur waaw voilà alors ba tax na loxo bi takk euh, euh, euh, tubay mooy takk séer alors ma jëm ci benn site internet boo xam te nii sax mën nañu wax sax télé la siiw na lool ñu bëri ràññee nañ ko ñu bëri aussi bàyyi nañ ko xel muy Vive TV alors idée bi fan la jógee. Vive TV fi mu jógee cest à man média dafa nekk sama passion te yaakaar naa ne xel góor rek moom ko jigéen aussi dafa dafa yàlla de ko bind mu am xel macha allah. te man ma yàgg cee gistu nag lool donc bi ma jàngee ba nga xamante ne def naa sama communication ba pare jàng communication yëpp dugg ci yeneen domaine jàng fa ba jàng ba pare donc dama duggoon ci média yi bi ma duggee ci média yi jaar naa ci ay télé de la place yu mag a mag a mag a mag am na ci télé yoo xam ne sax am naa fa ay fonction de directrice des programmes donc mën naa ne man jamono yi may commencé di def programmation boobu noonu bu ñuy wàññi jigéen Sénégal kuy def programmation su ma ci nekkul benn xam naa ne xëy na ñaar lañ ciy nekk bu boobaa donc bi ma jaaree ci télé yooyu nag xam nga benn instant da nga dem ba da sonn boo demee ba sonn ngay gis ku yi ñu lay woon lu nekk ngay bàyyi sa kër bàyyi sa njaboot bàyyi sa temps nekk di daw après eh, média yi benn instant da ngay dem ba nga ne man expérience bi ma am yëpp xaar ma dem yóbbu ko sama dëkk ci laa ne nag xaar ma dem tuxu ma jóge <laughs> almadi ga ma dëkkoon bàyyi lépp ginnaaw bàyyi média yeeg yëpp ginnaaw daal di ñibbi ñibbi ci sama fief sama dëkk muy dëkk Serigne Touba bi di njaareem ñu naan ko Bawol daal dafay dem samp sama chaîne de télévision muy VFTV VFTV nag dama ko sanc rek ndax idée bi rek laa ñëw indi projet bi mais moom ma ko parce que nu njaareem ñoo ko moom te li may wax xam naa ko parce que bi ma woowee waa njaareem ne leen ñëw leen télé baa ngi ni amu ci kenn ku jóge Dakar wala ku jóge Thiès ñëpp doomu Bawol la ñëpp Bawol la ñu yeewoo ñu gëm projet bi téel ko seen bopp bëggal ko seen bopp man mën naa ne man defatuma dindeetuma waajur bel ñu téel seen bopp télé bi rawatina VFTV ñi ci yeewoo ñooñu dama leen di nuyu sax neleen mais PDG na ngeen def parce que man nekkatuma fa daara daara fi mu toll nii bu ma soxla woon émission nii bu ma fayut. du ma def émission de Cheikh Fall sax xam na li may wax fu ma dem tudduma VFtv sax daf may mere na ma mere naa la tuddoo VFtv pour te dire que ni tele bi yàlla moo dogaloon damu jaar ci samay loxo ma dem yóbbu ko avec mais maigres moyens les moyens du bord ba yàlla suturaal nañu tey jii macha allah VFtv yaakaar naa ñi ngi koy dégg fu nekk ci àddina bi te yamuñu foofu nag ñi ngeeg yeneen ak yeneen alors VFtv nekk benn télé wala mënuma sax benn site internet wala télé ñaari benn la alors télé boo xam te ni ñu bari ñu ngi koy bàyyi xel à travers yow euh, li nga ci def lu bëree bëri bi nga koy door nekkoon na lu métti lool. ànd ci tamit mu nekk lu métti ku ne xam ne télé yombul ñun fi nekk xam nañ lu nekk ci ginnaaw alors bu dee amoo benn mooy amoo ku la jàppale day day xaw a métti bu ñu ñëwee ci ginnaaw tuuti. affaire bi nan la demee cent franc juróom-juróom yi nga daan dajale ah naka la demee woon. <laughs> yaa ngi la question bu ma neex parce que ñu bëri dañuy posé bu question bi parce que am na ñu naan ndey xaar héritage maamam la ubbee télé ma héritage maam lekkuma ci un franc maa ngi nii toog dërëm bi gën a ndaw lekkaguma ko ci. ñii ne ndey xaar tele bi au début dañu doon wax ne sëñ Modou Kara moo ko ubbi sang bi jàppale na ma nag ndax caméra bi ma njëkk taal pour def première image wax yàlla. caméra bobu sax yalla dafa def miracle bo xamné ne ñu ko ubbee li ñu filmé day réer photo sëñ Modou Kara rek moy génn manam image am rek moy ñëw bi mu solee cruise cruise gi nonu ben ben xawma lu xewon euh, daaru chaque jour mu gi ñu sonn ci caméra bi ñu té caméra bi ñu né comme caméra bi mom c'est le borom lako gaay tuddé won caméra bi c'est le borom moy première caméra bi ñu doon utiliser ci kër ga may fatiliku bi may soog dem Diourbel di ubbi télé bi 3 ans ci ginnaaw mais avant 3 ans et toog naa un an diko ko togg ñuy defar générique yi ndànk-ndànk lépp nag man maa daan toog sama kër jël sama machine di liggéey di liggéey di def samay devis di xool nan laay fexe ba ubbi télé bi euh, su ma la waxee benn affaire sax mën nga ma bañ a gëm de daan naa sax woor woor daan naa woor bàyyi takkaay bàyyi jënd yëre bàyyi jënd dàll pour économiser as tuut ba mën jënd logiciel bi doon tax man ma xam man mi am fi ci ubbi télé logiciel boobu nag Euh, man nga man ñu bëri dañ koy télécharger des fois ci internet bi mais nga am clé licence bi boo jëndul mo nekkon problème bi fekk jamono yoyu ma ngi représenter ben société bu tudd Websoft France bo xolé sen site da ngay gis représentante au niveau du Sénégal dañu bind Ndeye xaar fay donc ñom ñom may opportunité ba ma mën jënd logiciel bobu parce que dafa cheroon dafa cheroon ba bobu ay yi ñi wax ni VMX ak yoyep après la mais c'est-à-dire logiciel bobu ñom régie la donc biñ mako jaayé après nak ci laa nee na am naa fi léegi dem ubbi bi may ñëw Jurbel ñun ñëpp am ñoon expérience caméraman yi dama leen jëlee fu nekk ñiy bàyyi événementiel yi ñu doon def ñiy bàyyi réseau câblage yi ñu doon mais ñëpp ay professionnel lañ woon ci milieu mbirum mbirum caméra fil micro ma woo leen ñu ñëw toog suñu biir kër laa jël ëtt bi génne lépp parce que ëtt bi c'était fermé comme salon salon yi nga xam ne dafay nekk ci kër nii nga xam ne ci ëtt bi lay nekk ñu rangale table yi ma teg sama table ne euh, kii xale yu góor yi ñu gëm projet bi ñoom ñëpp ñu ñëw ku nekk teg ñu teg ñeenti machine ñii bu ñuy dagg ñii di monter ñii di def lii suñu amee programme man ma jiit leeg ñoom def jamono yooyu yoruma oto sama oto paan na presque ay 4 mois dañ daan dox ba ràpp fu ñu woo ñu daw avec nos maigres moyens ñu gëm ko rek ñu nekk ci rek ñu may soofantal di ma xeex biir Jurbel mais xeex bi du sori parce que seen doomu dëkk la daal di rek da leen di jaaxal duñ gëm projet bi dañ doon wax naan moo lii du dem man nag boo ne ma dem tey nga dee su ma demoon bay raam sax ba xam ne deseetuma dara mais benn nit mi ngi toog ci télé bi man damay dem. loolu sax gëm la quoi voilà donc yooyu yëpp mu metti kii fan la ubbee tele kii est-ce am na xaalis sax nii ak nii te pourtant fii ma toog di wax nii romb romb naa 17 millions d'investissement c'est-à-dire liñ ci jot a def ci alal bu ma compter oto bi nga xamante ne nii def naa ci choc mu yàqu. liñ jot a def ci biir télé TV di jënd di jënd rek di teg di jënd di teg di jënd di teg ba ci oto bu mujj bi ñu ngi ci 17 millions. te 17 millions yi defuñu comme chaîne de télévision yi nekk Dakar dañu wut suñu kër wut suñu studio defar ba mu nice teg suñuy caméra teg suñuy lampe créer suñu ay émission presque am nañ plus de 22 émissions di def di def di def ku ne nag jaar nga fa tey ku am fit Jurbel ci yenn yu baree baree VF TV moo la may fit. parce que danga naan comme jigéenu ko ubbi te VFtv mi ngi dox kon xam naa mi ngi ciy am dara xaaral ma dem ubbi mais noonu la média bi moo dox xëy na sax VFtv tax nañu gën a am motivation mais média moo dox a dox a dox ba nga xamante ne nii fi ñu toll nii euh, booy xool Dakar gis nga nu mu mel site yi ak yooyu donc région yi aussi noonu la dañoo branché léegi xam affaire nan la demee et puis gars yi ñu ngi génnee ci école yi léegi jàng montage jàng jàng cadrage ak yooyu donc dëkk ba fi ñu toll nii namuñu dara ci côté multimédia am nañ suñuy télé am suñuy site macha allah te ñun ñëpp nag benn bloc lañ biir Diourbel ku ci sa image réer da dem ci kii des mu jox la image bu ñu dajee ci milieu dañuy tooñante e man maa lay takk kii du la takk e diw diw man maay sa kii man ngay may njëkkee wala sa doom bu jigéen nga may may ñun suñu toogaay loolu la nekk di wax loolu Diourbel rek ko ko am xiiroo bee ŋaayoo bi amul Diourbel sincèrement donc noonu daal laa sooxee di suux di suux di soox def nañ ma fa nag lu ne nag boo déggee wax la ko mooy damaa jékki sax sama télé ma ñu rocci ko ay gaa jaar ci suuf yàq ñu rocci ñu rocci ker man maanaam su ma toogaan benn 10 minutes gisuma sama télé damay feebar léegi ñoom dañ ko xamoon tout Diourbel dañ ko ci man damay feebar su ma toogee suñu kër gisuma woote chaque minute dama doon woote centrale télé bi tàkkul de dama leen sonaloon sonal tellement que boobu dama gëmoon projet parce que comme pour Diourbel la bëgguma woon yeneen région yi reeñu naan dafa soom bi loo xam ne mënu ko àggale mais tey jii dem nañ ci ba tool ci fu nga xamante ne nii tey central ba samay frère ñoo fa nekk télé bi def nañ ko muy seen télé yeneen tele ubbi nañ Diourbel léegi central bay dox lépp a ngi ne buuj lépp a ngi ne baaj maanaam daal sant yàlla mais léegi nag maanaam dëkk dëkk dëkk dafa maanaam dëkk yi euh, moo na moo neexul a liggéeyee dëkk yi dañuy wow wow boo ko déggee ma ko mooy crise économique bi covid bi yooyu yëpp bu ñuy ñëwee daanu sa kaw nga yore média bu programme amul xew amul tëgg tama amul dara amul musique amul sa télé nu muy doxee waaye ñun ñu jàpp rek dénk lépp ku tedd ki teg ci loxoom rek daal di jàpp bañ a bàyyi te bañ jàppee ba tey bàyyiwuñu amuñu ci nag lenn luñ mën a tabaxee kër wala luñ mën a jëndee oto mais dëkk bi ñu ngi ciy gis seen bopp te ñu ngi kontaan ña fa nekki toog séentuwuñ ci dërëm projet wu waa Jurbel yépp la waaye terewul ñu ngi toog waaye it yàlla bàyyiwuñu ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax parcours bi en tout cas fi laa jaar daan taqale daal samay fii la ki samay weñ ak samay micro micro bi ma njëkk a indi ak lampe bi ma njëkk indi bi ma ñëwee ba woon ko parce que boobu xaw ma woon ban lampe laa war a jënd ma jënd samay lampe ñëw teg jënd samay affaire gars yi bi ma tegee bagage bi gën dañ ma doon ree mais jamono yi tey jii tey tey jamono yi tey ku ne woon matériel bu télévision tey ba ma taxaw ba ne la lii wala lii ne la ne lu 12K wala 7K wala 4K doo teg baat parce dafa am fu ma ci toll nag léegi loo gis rek tolluwaay la. un ah, dañu tënk un ah, peu donc jot nga jaar ci yenn télé yoo bëri yoo xam ne jot nga fa jaar wala jot nga jaar ci yenn sites yi tey ba ma doon tënkal tey ci télé yi nga jot jaar wala site yi nga jot jaar wala organe de presse yi nga xam ni nga cay jaar loo ma ciy tënkal waaw booy xool bi may gën a tout tànk sax jaar naa RTS mais ci Ambroise Gomis la jaaree tamit temps Fat Sakho parce que maag moom dañoo yàgg maag Ambroise depuis RTS ba ni mu demee immeuble Kébé mm-hmm. bi ñu aussi ay télé ay ay télé-réalité téléfilm yoo xamante ne ni c'était au Maroc. une sénégalaise au Maroc man mako def mu doon ben film euh, boo xamante ni première chaîne marocaine moo ko doon donc euh, bi ñu jógee foofu ma ñëwaat fi Sénégal euh, RDV la njëkk dem. par le biais de DJ Prince bi ma boole noonu ak Pa Assane Seck bi nekk tay directeur de production wu Sen TV kooku daal may yobu ñu jël ma ma nekk fa nekk fa nekk fa nekk fa ben instant. ma arrêté ci la ma Omaro woowee bi ma demee ci tollee Omaro tamit euh, def fa huit mois ma arrêté RDV woowaat ma encore donc bi ma nekkee RDV tamit nag ba nga xamante ne nii nag benn instant nag jóge naa fa Euh, boobu dafa fekkoon ma bëgg ubbi sama télé ci laa fa jóge et puis temps yooyu ma doon tawat yu dul tawat yu dul jeex ma ubbi sama télé mais léegi nag ba mu ubbee sama télé ba léegi man sama télé day continuer mais du tere yeneen télé yi dañ may soxla euh, par la suite télévision Bambilor tamit daal di may jël def ma directrice des programmes comme ni ma nekkee woon directrice des programmes bu télé Omaro bi donc daal sant yàlla te aussi maa ngi liggéeyal site yu bare bare bare am na site yu bëri yoo xam ne man maa ko créé maa nekk administratrice bi yenn kilifa yi aussi seen communication maa ko yore ak yenn page yu bare bare bari kon loolu sant yàlla la am naa ci parcours bu baax a baax maa ngi sant yàlla. ba tax na gis ngeen li nga xam ni moom développé ko nañ kooku nag pour présenté ba léegi mooy Ndeye Khar alors sànq ba léegi nag wax nañ wax nañu lu bëree bëri ci côté télé bi nu mu tijjee yu ni mel lu bëri xam ngeen ko ci moom alors dañu dugg moom ci côté actualité bu ne actualité nag je pense que en 97 moom jëloon na li nga xam ne mooy Miss Diourbel alors Miss bi ba nga ciy dugg dugg bi naka la demee woon. par accident laa ci dougué woon ah, comme j'ai l'habitude de le dire ci un écran yi par accident laa ci dougué woon ñu inscrire ma yàlla def ma daal représenter du mi Sénégal daal dem ci jamm ñu def ko ci jàmm mu ñibbisiwaat ci jamm continuer sama vie parce que man ni nit ñi yano adina man yanoo ma noonu àddina dama am luma ma gëm li ma gëm mooy il faut pas qu'on se jette des fleurs il faut pas que ngay nager dans dans dans dans dans les nuages yakarne que àddina loolu la alors que àddina dafa am ay réalité dañu am sunuy suñuy sunuy baax baax am suñu cosaana yépp waaye na comme loolu folo woon ba mu jeexee jeex na après ma daal dem continuer sama jàng waaw. alors bëri na tey métier bi nga xam ne nekk ngeen ko muy miss euh, affaire miss ak yu ni mel affaire lépp loo xam ne dafa touché wàllu mannequinat chantage bi dafay bëri est-ce que à l'époque bi nga ko doon jël amoon ay chantage. non ñun bi ñu def élection miss amul woon chantage li ma waxoon rek nee naa ñun sax homme duñ gis homme dañu daan tëj dañu sàmm. nee leen kaar bi ñu doon dugg mu ñuy yóbbu dañu indi rek moo daan am chauffeur boo xam ne góor la parce que xam naa ne jigéen du dawal kaar bi peut-être des fois suñu assistant bu góor bi daal di ne daal di ñëw pour suñu ay soxla wala euh, suñu ay besoin rek daal maanaam mais bu dul loolu ñu daanu ñoon gis góor te fu ñuy dem ñoo daan ànd jigéen bloc lañ daan def amul kii day beru fii wala kii day tëju fii loolu amu foon te dañu boole woon ak ay xale jigéen yi ñuy sàmm di ñu bunge ci lépp ba nga xamante ne nii benn tentation mu suñ ko gis yàlla rek laay waxal benn tentation suñ ko gis su ko defee tentation boobu sax nga wax ñu gis eh, ki nga xam ne moo nekkoon Miss Sénégal 2020 alors ñi naan dañ ko violé ñi naan dëgg la wala dëggu wala nekkul dëgg bala ñu dugg ci domaine boobu noonu lan nga gisee loolu ak lan nga ci mën a wax. bon li ma ko gisee mooy bu fekkee loolu am na maa ngi koy masawu di ñaawlu lool euh, acte bi euh, dama koy wax nag ne ko comme fi ñu toll nii nag coow loolu moom bàyyi na ko mu jàll di jàll ba heure bi euh, soit day bàyyi mu sedd. comme léegi sax am na baay bi am na doom ji am na baay autant pour moi soit bu dee ne mënu koo baale ak ni xeex bi nga xamante na ci dëkk bi yëpp jóg xeexal ko mu topp ko jusqu'au bout mu dem justice mais léegi nii rek maa ngi lire sur la toile ñu naan finalement accepté na day dem Europe te bu génnee dañuy camoufler affaire bi affaire bi jeex pour man man bu ñu ma tegaloon un milliard ma nekk ci sama dëgg di ko topp du mu sedd dama ci dem ba lu ci may ma jël kon maa ngi koy conseillé ne ko àddina dara jaru fi dara xam naa sonn nga bëgg nga daw génn dëkk bi pour noppaliku say famille sonn nañ mais li gënoon métti jàll na li gënoon naqari mooy nga jógoon tey ji combat bi kenn bungewu la ci mais combat bi ñëpp ci ànd ak yow kon nag justice bi feeñal mbir mi ñu xam fan la féete da ciy baax ndax ñi la doon xeexle mën a siggi mais buñ la xeexle ba heure bi nga lâché leen dem sa yoon loolu yëfi gor jàppal mu dëgër mën nga tukki après bu la neexee mais topp ko ba justice wone dëgg wa ilaa nga ñëw jéggalu population bi ci coono bi nga xam ne daj nañ ko ak fitna bi nga xam ne daj nañ ko nga daal di defaraat sa toogaay préparer sa billet dem parce que bu boobaa sa choix lay doon yow yaa bëgg a génn dem tukki mais ni situation bi demee nii man moom bu tukkee moom wax dëgg fa yàlla te neew ma baal ma àq ci coono bi nga ci daj man moom bokk naa ci ñi koy mere <laughs> alors tey bëri na tey ñu bëri ñu bëree bëri ñoo xam ne tey ñi nga xamante benn critique maanaam ñun Sénégal ni ñu tàmmee ay Miss Sénégal donc critique yi dafay dafay dafay bari lool parfois ngis gis koo xam ne sax man rek la dàq ah, ñu jël ko teg ko ne ko yaay Miss alors ci critère la ñuy tànnee Miss. danga koy xool ci man mu ñaaw mii rek maa ngi nii ñaaw bay bëgg a dee te bañ ne miis ba dañ ne Missu Njaareem ñu ne ndey xaar. xool ci yan critère la lañ lañ ah, tànnee quoi du du taar tardé chance la woon rek mais ñoom avant ñu lay jël dañuy xool sa njàng. ba xam yaa ngi jàng nangu ngaa jàng est-ce que am nga éducation bu baax est-ce nekk nga nit ku yaru koo xam ne fonk nga say waajur fonk sa liggéey te famille bi nga bokk tamit famille bu baax lañ bu ràññeeku ñu jël la. même boo ñaawee kooku moo ëpp chance ki nga xamante ne nii dafa rafet ba pare te ñu koy dégg ci yenn détails yi. donc Ambroise noonu la daan jëlee ay miisam te wax dëgg fa yàlla ba mu koy def ba léegi nii ma ngi ci dëgg maa ngi ci fen dara musul ñaaw lépp daan tegu ci yoon. macha allah waaw. tey bu nu bu nu bu nu waxee ci côté Miss ñu génn un peu ci côté Miss dugg ci côté projet yi. waaye chaque fois dañu nit nag bu ne baax na dañu naan est ay mbokkam ñoo ko na ay images yu bëri yoo xam te xam ne ay mbokkam ñoo ko def ci moom léegi léegi dinañ la ko wan waaye loolu nag moom ni mu koy bettee man noonu la may bettee parce que ñun xamaguñ sax lan lan la xam naa ci kam te di nga gis image yi nga xam te nii moom la ay ay dëkkandoom def ci moom xaw nag baax na xaw ma bon na mais ay mbokk ñoo koy témoin laata loolu dañuy duggee ci côté projet yi yi instant bi su projet yi lan mooy projet yi projet yi de mooy maa ngi ñaan laaw buur bi ñu dem ba yor suñu plateau bu rëy rëy rëy boo xamante ne nii képp ku mus a teg benn jéego ci VFtv képp ku ma mus a jàppale mu métti ci jamono yi nga xamante ne nii jóg naa ne damaa bëgg ubbi télé dugg ci société bii tey nga xamante ne média la ñuy def maa ngi ñaan laaw buur bi te maa ngi ciy liggéey pour ñu am plateau bu yaatu boo xamante ne day doon ay R plus képp ku musoon rek yeewoo ci VFtv nga ñëw fa toog ñu daggal la salaire bu ne gàññ gaare suñuy oto mu ne booy ñu ko yellool di ko dawal di dem di ñibbi ma sigil leen man ma mën a siggi lii laay ñaan laaw buur bi ba nga xam ne tey bu ñuy compter les femmes personnalités femmes de l'Afrique les cinq premiers incha allahu bi ma mën cee bokk ndaxte nag maa ngi liggéeyal sama askan nag te vision boobu gis naa ko gëm naa ko te bu daggul day dikk loolu laa ñaan yàlla suñu borom loolu mooy loolu mooy vision bi nga xam ne ci laa tegu te dara mënu ma cee jëlee te ba tax na tey nee la ñu ngi fi nga xam te ni mooy Mbambilor ñu fekk ci woon benn jigéen moo xam ne jigéen du mën góor la mu tudd Ndeye Xaar nee nag xam ngeen ci moom tey lu bari bari loo xam ko woon ci moom alors chaque fois dama nag nit nag bu ne baax la ay mbokkam ñoo ko wax alors tey nag nee la di ngeen gis ay témoignage yu doy waar ay témoignage yu garaaw man ak yéen ñoo ngi lay ngi xam ne mooy sa dëkkandoo mooy Ndeye Xaar loo ñuy wax ci moom tey waaw maa ngi koy gërëm di ko sant parce que Dakar laa jóge liggéey moom indi fii mais mu nekk dëkkandoo bu baax ndax bu ma ñëwee yaatal na ma presque moom laa ñëkk xam si koñ bi yaatal na ma daal yaatal na ma parce que boo boo ñëwee si dëkk xamoo kenn da xool ñoo xam ne ñoom ñoo la gën a ñoo la gën a may doole yaatal la ñoom ngay dem parce que am na yoo xam ne sama bagage yu presque yu bëri ñëwagul woon moom laa doon ñëw moom ko doon abal vraiment maa ngi koy sant di ko gërëm waaw. kontaan nañ ci yow. waaw ah, kontaan naa si moom. merci salaamaaleykum. maaleykum salaam. soxna si na nga def. maa ngi fi maa ngi sant yàlla bu baax. tur bi naka la. man la Mariétou Tine madame Diop. alors tey boo ñu doon wax tey ki nga xam sa dëkkandoo muy Ndeye Khar yan kàddu nga nu mën wax ci moom ak dëkkuwaay bi ngeen dëkkee dëkkee fii. macha allah macha allah Ndeye Khar dama koy ñaanal yàlla euh, Yalla bu koy cat dugg macha allah ku neex a dëkkal la ku baax la ku am teraanga la ku am fulla la ci boppam loolu tax ma gën ko jàpp macha allah fulla lay dox ba mu jeex tak, li muy dugg nii maa ngi ko ciy ñaanal mu dugg seeg bisimilahi rahmaani rahim génn seeg alhamdulilahi alamin macha allah dëkkandoo bu baax la ku neex a dëkkal la ku oyof la ku laabir la alalam du ko boole kenn chaque jour day xool say bët ndax mi ngi xonq mu fajal la bu ko amul sax day lalu néegam du nangoo génn pour gis la ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér loolu rek lañ koy ñaanal. dañu kàddu boo amoon tey benn conseil boo